di fëf di lay ci di wal mooñ di tay li réew mi dundee tay ci sëriñ Béthio yaa ko bay ci sëñ nii nga def ci sëñ Seydina Seydina doo ko seen ci di dem gumu ci sëriñ Saliou